5M TV Sénégal mbokk yi siifur 5M TV Sénégal dal leen ak jàmm ci xibaar sëriñ Ibrahima Mbacke ñi gën koo ràññee ci sëriñ Khalil Mbacke moom nag di doom ci sëriñ Fallou Mbacke ibnu Cheikh Ahmadou Bamba sëriñ Ibrahima Mbacke nag ñu gën koo xam ci sëriñ Khalil Mbacke mi ngi nekkoon fële ca bitim réew ba sax foofu la euh, wuyjee boromam moom nag sëriñ Ibrahima Mbacke ñi gën koo xam ci sëriñ Khalil Mbacke. moom nag euh, ma nga ca bitim réew ba tey euh, koor bi ñëwagul ñu koy ñaanal suñu borom subhanahu wa taala mi yore ak njéggal mu jéggal ko te xare ko aljana ya gën a kawe ca wane ko ak maamam ju baax ja Cheikh Ahmadou Bamba te yàlla na yàlla may xolu muñ ak njabootam te yàlla na ko yàlla jéggal te xare ko aljana te taas ñu ci barkeem waa 5M senegal Sénégal nag ñi ngi leen koy jaale euh, di ko jaal ak njabootam te di ñaan yàlla mi yor ak njéggal daal mu jéggal ko kon mbokk yi jox leen eh, dig daje beneen incha allah ci 5M TV Sénégal jërë ngeen jëf ci ànd beeg 5M eh, TV Sénégal cinq M TV Sénégal